di ko nuyoo rek ñaari njabootam ne ko kii de sama doom la goo xam ne ci jàng alxuraan ak jàngale ko rek la yëngatu sëriñ bi ne ko rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayhun an zikrillah mu ne ko kii ci des itam mooma féetoo ci wàllu kër gi ci wàllu commerce la yëngatu sëriñ bi ne ko wa axaruuna yadribuuna fil ardi yabtaxuuna min fadlillah kon lii ñu defaate ci loolu rek la tàbbi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi nuyu bokk jullit yépp la ci jiitu rek mooy ak cant ndax bari bii di Masaalikul Jinaan sëriñ bi dafa wax ne alxuraan dafa wax ne wa anna almasajida lillahi falaa tad'u ma'a llaahi ahadan kon innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil axir kon loolu jullit yépp ko bokk kon nañ xam ne jàkka ji néegu bi yàlla la kon nag nee na ba mu koy woote di ubbi jumaa ji dafa waxoon ne bëgg na mboolem lislaam jëpp xam ne jàkka ji jàkkay lislaam la loolu nag mi ngi leen ci sant ndax yëg na ne istajibo lillahi wa li rasul isa daakum lima yufikum wane ngeen ko ci ndax jàkk ji kenn mënatu fee xàmmee ku bokk ci yoonu murit ak ku bokk ci beneen tarixa ak ku bokk ci lislaam ji nee loolu mu ngi koy rafetlu bu baax di ñaan yàlla saxal ko di xam ne masaaliku jinaan ji muy ji muy firi dafa war a nekk mu fattaxatan lahumul ab loolu nag lii moo koy dundal kon nee na mi ngi sant mboolem bokk jullit ji di sant bokk taalibe yi ndax jàkka defuñ ko rek ngir rafetal waaye li koy dundal mooy ña julli kon nag ñi ngi soññ ñëpp ci ñu xam ne julli mooy imaadu diini fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin kon nee na mi ngi ciy soññaat bokku jullit yi ak bokki taalibe yi ñu dunde ko noonu te xam ne Sëriñ wooteem bépp mës sa génn lislaam dara mës koo itteeli lu may lislaam lislaam jooju mu doon woote nag yéen wuusi ngeen ko ci te Sëriñ Tuubaa bañ na ko ba at-tariqatu muridiyya sax ñun ñoo koy tuddee na waaye sëriñ bi tuddewu ko noonu ku jëm ci yàlla rek la ko tuddee xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa mboolem wérdi yi wérdu alqadiriya ak atijaniya ak achazaliya yëpp am na ci ñoom xam daanee leen ko jox ba ci biir yoon wi ak Cheikh Ibrahima Fati xam ngeen ne sëriñ bi joxoon na ko wérdu yooyu yëpp ba daana ko joxe am na ci ñeneen ci yoo xam ne mën naa ko tudd ci biir yoon wi ñoo xam ne ku ci ne joxoon na la wirdu yooyu lépp ngir xam ne mbiram xatut kon képp ku ko bëgg sopp ko rek yaa ngi ci biiram sëriñ bi ne kon loolu mooy li jiitu cant gi ginnaaw bu loolu jaay nag li ci des la loo xam ne da koy jëmee ci taalibe yi sëriñ Tuubaa yi yi nga xam ne lim seq ak ñoom mooy digal leen ak tere kon nag kunu ma alxaqi ma ma kallafakum al amru nee na kon mi ngi fàttali ñëpp ndigal li nga xam ne moom lay bëgg a joxe ndax jàkka ji bi nga xamee ne Cheikh Saliou Mbacké naaloon na ko ca pàkk bu njëkk ba ba yàlla def barab bi ñëw bi mu barab bi yaatu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké agsi dugal ci institut islamique recherche di Cheikh Ahmadou Bamba ak salle de conférence boo xam ne war naa mat ñetti junni place ak juróomi téeméer moo nekkoon ci plan bi xam ngeen ne biñ koy tàmbali noonu lañ ko waxewul ba yàlla def jotuñ koo tàmbali tegoon xeer bi ak Cheikh Sidou ñëw ñu tàmbali liggéey bi ba liggéey bi sori bañ doon bëgg a tàmbali sax salle conférence bi ak institut bi Cheikh Sidou Moukhtar wax ne nañ fexe ba jël liggéey bépp. jëmee ko ci jumaa ji ba mu àgg lu ci dolli ko door caa dolli ko kon loolu moo doon ndigal la ndigal nag bu agsee ci taalibe bi ci am xalaat waratoo ci am bëgg-bëgg moo tax fa sens rek lañ ko daal di jël ne ko tegg fi suuf amatuñ ci benn xalaat ba yàlla def a cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Diop moom it yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu agsee dégg ngeen la mu njëkk wax sama yitte jëpp maa ngi ko jëme ci daara cheikhul xadim ci mooy université ba muy tabaxal Serigne Touba ca Touba kon sëriñ Touba ku ne ak lam la liggéeyloo ndax naan la fi waxaw ne Cheikh Abdoul ba Mbacké moo ko tàmbali woon Serigne Saliou ñëw àggale ko ba ñu ubbi woon ko bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëwee nag ne sama yitte yëpp ak sama xalaat yëpp mooy daare Cheikhul Khadim ji laa fa séenoo sumb ba mu àgg liggéey ba nag ñëpp xam nañ ne ñaga kon ni mu ko soññee woon ci màggal gi rek. na ko ñëpp xame noonu li fi liggéey bi agul rek na ko taalib yi xam ne lépp seen jëfa ko war a def nit ñi nag la Serigne Saliou Mbacké daa wax rek joxe bi dafa jiitu laaj bi kon seen yitte ak seen pëstéef ak seen bëgg Serigne Touba kenn nattab joo ko waaye nag ab taalib ak salle de bi ndax liggéey Serigne Touba kat dañoo jaay suñ jëmm jaay suñu alal ngir jënd ko ngërëmu Serigne Touba muy la suñ borom waxoon ci alxuraan ci diggam ak saxaaba yi ishtara min al muminin wa amwalahum bi janna kon nag ku sukk jébbalu te yaakaar sëriñ tubaa da xam ne sa lépp sëriñ tubaa ko moom kon waruñoo dencal dara ëllëg ngir xam ne dencal ëllëg kat la gën mooy la alxuraan santaane hal adullukum ala tijaratin tunjikum min asabin alim tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fi sabilillaahi bi amwaalikum wa anfusikum kon loolu mooy jihaad ci sa alal ak sa jëmm kon nag xam ngeen ne jihaad ci jihaad sa bakkan amatut kon li ci mooy jihaad sa alal kon nañ xam ne alal ji jëriñu dara lu weesu terloo ak suturloo li ci ëpp solo nag mooy la ngay denc ëllëg ndax loo fa loo fa fàggoot bu ëllëgee doo ko fekk kon la sëriñ bi waxoon rek doomu adama ñaari biir rek ko saq biiru jëmmam ji ak biir bàmmeel mu ne biiru jëmmam ji bu muy itteem ndax yàlla mi ko sàkk mu wax ko warul la fa def la jëm wa ma min dabbatin fil mu ne biir bàmmeel ak nay itteem ndax lu mu fa jëf du ko fekk kon nag li ñuy jëf ngir sëriñ di ci yaakaar ak payam ëllëg loola mooy li solo ci ñun kon sëriñ bi nee na mi ngi ci joxewaat ndigal kon sëriñ Mbàkke yi boo jógee fii nanga seet noo ko daal di tàmbalee waajal ngir xam ne bu sëriñ bi jàppee dat bi waxtu moo xam nag na mu koy jàppee dana ñëwal boppam ñu woote ko mu teg xeer wi taalib bi yëpp sóobu ci ànd ko moom waaye ci diggante bi nag kon ab taalib bi moom du xaar da ko daal di tàmbalee waajal lu ci waay man nga tàmbali ko ngeen xam ne liggéey bi dafa yaatu ba ca di mooy liggéey boo xam ne wërta taxaw ndax jumaa ji xam ngeen ne li ko taw wax bari na kon moo gën a jafe fuuf entretien bi waaye entretien bi yombut ndax xam ngeen ne jumaa ju toll nii li ko war entretien lu ci yàqu ñu defaraat ko lamp yi lakk ñu soppi ko ak facture courant yi jumaay Tuubaa ji ak kër Sëriñ Tuubaa yi rek Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaari weer yu ne mi ngi ci fay 40 millions fi mu toll nii kon xam ngeen ne loolu du liggéey bu tuuti fii nag yéen ñi dëkk Dakar yéen a ko war a def kon ci biir loolu xam ngeen ne li fi war bari na kon taalibe nañ ci gën a góorgóorlu tàmbulaat di ci jëf bu ci daa jëf ba liggéey bi ak si fii na nga daal di tobbiwaat saw sas loo ci defoon benn nga yokk ko ngir xam ne li fi war bari na te sëriñ bi joxe na digal muy imaam ak ñu topp ci moom ñu defaral leen ay kër ci fu jege barab bi ngir seenu nekkin ci barab bi mën a yemb loolu lépp nag sëriñ boobu joxe ndigal la war a def waaye kon yéen taalibe yi nag ñun taalibe yi sax nañ xam ne lépp suñu warte fa ndax kenn defalut Sëriñ Tuubaa lu ko gënal li kon nag buñ jógee ci jataay bi rek na koy ñëpp tàmbalee waajal lu ci waay man loo man ak loo mënul nga def ko ci ngeen xam ne loo ci def rek dañ ca dajeeg payu yàlla dañ ca dajeeg ngërëmu suñ Tuubaa te waridwaanu minallahi akbar zalika huwa alfawsul azim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñaan nan nangu ñaan sëñ baa ngi ñaan amin amin amin amin